sama dund li ci des ci politique. Macky Sall. duutu nu bokk ka langu politique. dàq na ma ci partem ci noo xam ne waru koo def. ma yéene mu jox ma benn cër ci àdduna ci partem ma yéene aussi li ma des ci dund mu jox ma benn cër ci wàllu état. dafa tolloon nag bu mbir xewee ci réew mi. samay position ya ma cay def. du position yu may lebe jël. Mhm. du position yu may fayee bor mhm. xam nga nit ñi lañu lañ waxoor mhm. lan moo xew ba ma jël position xam nga bu fekkente ne Barthélemy Dias dañ ko convoqué tribunal le 7 juillet mu toog ba bëkk démb mu ne li tax ñu convoqué ko wala moom wala ay avocat li mu nekk candidat mairie Ndakaaru moo tax loolu ñàkke teggin waa Sénégal la ñàkke teggin askan wi la ba ñu koy woo ña ko doon woo xamuñu woon ne moom dana nekk candidat parce que booba yeewi askan wi sax amut ba ñuy xam ne mhm. Barthélemy Dias moo nekk seen candidat kon moom moo def lu moo moo wax lu mu wërta wax Sénégal nag ku fi mën a ne mhm. ak loo mën a doon soo waxee loo xam ne gëm naa ne lii ay nax askan wi la dinaa ci yëkkati sama kàddu mhm. lii bu fekkee nag loolu mooy mooy mooy gis ak mag mooy maanaam jubag mag sall loolu ña koy wax moom maanaam ba ba ñuy faatu ba seen doom di faatu duñu gis fu ma jubóog Macky Sall. mais mais en politique il faut jamais dire non comme on man nag damay wax jamais ci politique. Mhm. Macky Sall ci la ci wàllu politique. Mhm. tàggoo nañu te duñu dajewaat. pour man euh, nit ki bu fekkee maanaam jaadu na am je normal que booy dem bu ñu la woo tribunal nga ànd ak say say bokk nga woo nit ñuy gunge la loolu man pour man amul benn problème mhm. euh, li ma jàppee nag warut indi benn fitna waaw waaye nag bu ca fitna amee moom nañu jàpp na ñi wootee dem ci mbedd mi te jaaraluñ ko fi ñu fi ñu jaarale manifestation ñoo indi fitna. c'est-à-dire que police indi wut fitna gendarmerie indi wut fitna Barthélemy Dias ak ñam àndaloon ñoo indi fitna. parce que nag xaaramaagal rek. Euh, tribunal bi yàgg na caa dem. mës sa woote. kon woote gi la mu ci jublu sax soxlawul koo ko gunge day def politique. Mm-hmm. loolu nag damaa jàpp ne aw askan ku ko respecté. doo ko doo ko doo doo ko woo ci fitna ngir di ko politique ndax bu ginnaaw danaan dem tribunal ba bu le 7 juillet moom moo da demandé appel ndax vingt cinq millions yi ñu ko laaj da cee dakkoorut benn 7 juillet ba muy dem àndut ak kenn ay awakam ànduñoo kenn kon encore une fois li nga xam ne moom laay ñaawlu tey sàkku ci sénégal yi ñu ñaawlu ko mooy nit ñi nga xam ne dañoo bëgg a jël fitna di ko politique loolu nag su ma koy wax dafa am dalil gis nga man bi man ñun bi nekk ay gone nekk RND. Hmm. su booba Cheikh Anta dafa porté woon Senghor plainte. Hmm. ci la fait que Senghor bañ ne du reconnaître RND. Hmm. Cheikh Anta bu tëj projet bi Massane jeex day jóg jàkkaarloo xale yi ne na ngeen delluwaat seen kër bu leen dara xus. c'est loolu mooy lan. mooy nitu politique. wërta jël ay gone yi jaa doomi jaamur di leen jafandu di leen xeexloo ci politique. wala di leen xeexee ci politique. Mhm. kon encore une fois loolu laay ñaawlu te di ko tey woo nit ñi nag ñu ñaawlu ko. Mhm. parce que nag Sénégal waruñoo nangu doomu jaamur yi doon doon maanaam nit ñi di leen utiliser pour di xeex. loolu nag ñu ngi sant ba léegi. Mhm. mbooloo faatu nañ ci politique Sénégal. politicien faatu wu ci doomi mm-hmm. politicien ah, faatu wu ci doomi jàmbur yi rek la ñu rey loolu moo war a dëkk mm-hmm. loolu nag bu fekkee wax ko mooy ànd ak Sall mm-hmm. loolu moom bàyyi ko ñu koy wax kii woote fitna bëgg utiliser doomi jàmbur yi kooku moom mooy responsabilité principale bi li war nag police ak état mooy li nga xam ne constitution bu Sénégal daf ko sant état mooy aar doomu aadama yi aar bakkanu nit ñi dégg nga xam nga constitution bu Sénégal daf ne as doomu aadama daf dafa dafa dafa dafa sell kenn waru koo bund xataal raw teg ca nag ne état moo war a aar dundu doomu aadama yi moo war a aar doomu aadama yi ginnaaw nag état moo war a doomu aadama même bu fekkente ne ab kàccur politicien dafa bëgg jël nit ñi jëfandikoo leen état moo war a am dal ak tey goo xam ne wootee boobu aw lor du ci jóge loolu moom c'est le rôle de la police et de la gendarmerie mooy effectivement fexe ba yëf yi du du dégénéré wu euh, fexe ba dara du yàqu mm. waaye nag mu boole ci nag di aar bakkanu Sénégal parce que nag quand 1960 ak léegi li fi dee. ci manifestation euh, publique. te euh, dee nga jóge ci police ak gendarmerie. dafa ëpp te dafa doy dafa war a jeex. xam nga ñiy wax ne xeexaluñ Barth xeexaluñ Sonko. démocratie la ñuy xeexal seen bopp la ñuy nax. parce que procès Barthélemy bi du procès démocratie. procès Barthélemy diggante Barthélemy la. ak Ndiaga Diouf ak waajuram normalement diggante Barthélemy la waroon nekk ak parti démocratique Sénégal. te tey jii xool kenn du wax waa PDS. Mm-hmm. alors que nervi yi PDS moo leen recruté woon yónni leen Mermoz mm-hmm. mais bu ñuy wax dañ mel ne waa PDS ni ko ci rawatina ci te bañ toogoon di def conférence de presse am na kilifa yu PDS yoo xam ne jamono yu loolu am ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ci nguuru Abdoulaye Wade loolu nag dafay lu ma lu doy ci man la ci nitu politique nu muy fonctionné. te garde dogumal sax boobu sax ay noolee lañ ah. man dafa am ñoo xam ne dañoo toog ca taabal ji bi ñu def conférence de presse ay kilifa yoo yooyu am ñi ngi nekk ak Abdoulaye Wade tey jii ma gis la ñu toog ci wetu Barthélémy Dias. comme kan te nag du ma ko tudd yow man koo xam man koo dem si ma man tudd nit du sama mm, mm, mm. du ma man li ma intéressé mooy di di wax ay faits. li am di ah. ko di ko rafetlu wala ma di ko ñaawlu. kon mbirum procès bi du procès diggante Barthélémy ak Macky Sall du bu problème bi Barthélemy ak kenn bu problème Barthélemy la ak waa njabootu Ndiaga Diouf mhm. waa juru Ndiaga Diouf ñoom mhm. ak waa parti démocratie Sénégal malheureusement PDS nag moom presse bi sax du ñeen tudd loolu nag man xaw xaw xaw na maa jaaxal maintenant ginnaaw euh, mbirum Barthélemy lan la mooy dañ moom dafa def appel ñu war ko attewaat mhm. kooku du affaire démocratie cest à li mu ne dañ koo woo ndax li mu nekk candidat waxul dëgg te lu dul dëgg kenn du ko xeexee démocratie. kon encore une fois du problème boo xam ne démocratie lañ fay defal ñu ne ñoom ñi ko gëm nag ne dañ jàppale Barth mooy jàppale démocratie seen bopp la ñuy nax wolof Njaay nag daf ne jaaxaan di saw ndox mi sa sa sa dënn lay sotti bi ñu des muy affaire Sonko. Sonko dafa xëy fii ne bi ko Adji Sarr porté mu ne Bassirou Gueye. Macky Sall ak Antoine Diome ñoo ko complot. te dara du ci dëgg. dafa jël mbirum privé foo xam ne moom ba mu fay dem këram la jógee guddi. masqué wu àndut ak sëboor àndut ak ba mu fay dem waxul di jabaram fu mu jëm dem la ko fa dal dal ko fa mu xëy xëy wëlbatiku ne Macky Sall moo complot waxul woon dëgg kon xeex boobu aussi ku ci xeexalee Sonko xeexaloo démocratie ndax loolu jottiwut ak dara démocratie sénégalaise encore une fois nañu bàyyi Sénégal yi ñuy foyee nañu bàyyi senegal yi ñuy jaaxane nañuy wax dëgg senegal nag si ànd Diop dafa naan wax senegal dañu leen a nax a nax ba ku leen naxut boo leen woo da nga dañu jàpp ne dëgg leen a loolu jàpp naa ne bokk na ci jàngoro yi dal ci réew mi te kenn ko ne ci ñun war na cee góorgóorlu ngir mu faju xam nga élection moom code électoral bi moo ko organise code électoral bi da ñaari pàcc y a la partie muy loi bi ak la partie réglementaire muy décret ak arrêté yi yu mel ne gouverneur yi ak yooyu moo organiser code jox candidat yi ay sañ-sañ jox sous préfet préfet gouverneur yi ay sañ-sañ jox ministre de l'intérieur sañ-sañ jox sénat ay sañ-sañ jox cour d'appel tribunaux yi ay sañ-sañ gis nga bu kenn ku ne defee la la la la yoon may jàmm rek mooy am moo tax bu fekkee yow da ngaa déposé sa liste su ko su la ko administration bañalee am nga pexe def recours immédiatement ci cour d'appel ba nga xam ne foofu foofu nga dëkkee ñoom ñu àtte pour le moment gis nañ ne cour d'appel mu ngi jox dëgg ñi nga xam ne ñoo yoroon liste yi loolu mooy état de droit muy nit bu amee lu ko naqari mu dem fa mbaxana doone benn jooyu fa mbaxana mbaxan fa mbaxana doon benn ñu gëstu li mu wax ndax dëgg loolu dëgg bu amee dëgg ñu jox ko maintenant ci biir code élection locale yi dafa am ñaar yoo xam ne euh, maanaam bu bu néew tiblis liste boobu kenn mënu koo jël dañu la koy delloo duñ ko xoolaat bu njëkk ba mooy fekkee nombre candidat yi daa mëtut li mu war a doon daa ëpp li mu war a doon dañ la koy delloo su fekkee liste bi daa amul parité dañ la koy delloo waaye leneen lu mën a doon boo demee ci administration bi wala wala yoon yoon mën na laa coo dëgg par exemple bu am na benn liste boo xam ne dañ ko ngi tudd defar sa gox mm-hmm. dañ ko dañoo leen ko nangu ndax dañu ne leen seen couleur yi dafa niroo ak yu mag yu benn bokk yaakaar mm-hmm. loolu du sañ-sañu. du Adama Adama Faye la. Adama Faye yaa mm. loolu du sañ-sañu sous préfet sañ-sañu préfet. Mm. bu dee affaire couleur ak symbole. Mm-hmm. ministre de l' intérieur rek moo ko war a régler. loolu itam bi mu amee man bindoon naa ne ñaawlu ko. Mm-hmm. Sénat aussi bind na ñaawlu ko jàpp naa ne daañu leen delloowaat seen i parce que nag li préfet yi def sañuñu ko li sous préfet yi def sañuñu ko parce que affaire couleur ak ak symbole kooku ministre de rek moo ko man a kon encore une fois. Mm-hmm. danoo war a ànd Sénégal nag. dana war a jàng dal ci politique parce que nag réew moo xam da ngaa def ñaari alternance démocratique mm. parce que jàpp naa ne bu fekkoon ne nguur mën naa faxe ba du falu ba du folliku Abdou Diouf du folliku 2000 mm-hmm. ba du perte ñàkk Ndakaaru 2000 2014 kon encore une fois Sénégal nag lii dafee yàgg mm. maanaam depuis mi Blaise Diagne ak Carpo ba léegi mm. fu ñu jubee élection politiciens yi ne élection yi du baax. peut dañ koy frauder administration bi dafa corrompi waaye bu élection yi jàllee bu ko gañee kenn du dégg mu wax. xam nga nag loolu moo jaru mooy yow élection boo ko gañee baax na waaye bu ñu la gañee baaxut justice bu la joxee dëgg baax na waaye bu la joxul dëgg baaxut loolu du yëfu nit ku normal loolu dafa war a denc ci Sénégal Sénégal jàpp naa ne àgg nañ koo xam ne kenn mënatu fee sàcc élection loolu nag ab xeex la boo xam ne ay nit ñoo jaay seen bakkan ba agsi ci loola moo nekkoon combat démocratique combat démocratique bu ay nit ko mëne waaye pour le mu ak contre contre loo naa ne loolu du taxawaay pour mbir bu amee moom yow sa bopp en tant que journaliste li nga war a jëkkee yow mu wax lu mu doon ndax dëgg loolu dëgg parce que bu dee liste liste bëgg bëgg nu tudd gëm sa bopp bi nga xam dañ leen ko delloo ci Ndakaaru mm. la tax ñu delloo leen ko mooy la nekk ci liste yi daa ëpp li ci war a nekk loolu dañ la koy delloo ko code électoral moo wax préfet delloo delloo ko ko waaye léegi da ngaa bëgg ñu bañ koo delloo parce que day def opposition non xel waru ko xalaat li nga wax sànq ci problème mu impôt itam gis nga mbirum impôt moom da ngay fay impôt damay fay impôt ñun ñëpp dañuy fay bu fekkee da nga nekk entreprise te euh, impôt ñëw ne la da war a fay nangam xam nga yoon wi nga war a jaar lan mooy dem négo dem wax ak ñoom wax ak ñoom xool ba xam li ñu la wax dëgg la nga indil leen nga indil leen yow sa gis-gis mhm. ñoom tam ñu indi seen gis-gis ngeen dajaloo waxtaan su fekkente ne yey nga leen. ñoom dañu lay topp su fekkee ñoo la yey mën nga leen a sàkku ci ñoom ñu wutal la moratoire mën naa dem ba fukki weer ak ñaar ba fukki weer ak juróom. Mm-hmm. kon jàpp naa ne euh, li ñu mujjee woon parce que ñoom waxtaan nañoo waa DGID. mu waxtaan woo ko jëkkee woon coow lu du am coow du am. kon loolu mooy li euh, am ci réew mooy li ñuy wax la stratégie victimaire maanaam. Mm-hmm. toujours ngay wut pata maanaam fitna di ko teg sa bopp. Mm-hmm. wala boog nga jël fitna ne gouvernement bi moo ma ko bëgg a teg parce que dafa maa bëgg a sànq je crois que loolu vraiment war nañ koo bàyyi te nag respecté euh, euh, askan wi parce que nag aw askan boo ko respecté doo xool ni liste parallèle yi ngay wax alliance pour la république ku ci bokk mënoo bokk ci list buy wujjee ak alliance pour la république loolu boo ko defee réglementaire bi dafa wax ne bokkatoo ci alliance pour la république kon moom bu fekkee président Macky Sall ñi ko def wax tegu leen ni daan boobaa moom ci boppam mi ngi violer encore réglementaire bu parti su fekkee nag dajaa ànd ñoom mi ngi violé mi ngi war alliance pour la république ndax mi ngi violé règlement intérieur bi nga xam ne moom moo ko war a sàmm kon encore une fois loolu li ma ci jàngat nag mooy Sénégal parti politique yi ña ko yor dañoo def seen bopp ay buur parce que fondamentalement boo xoolee élection locale yi nga gëstu liste yëpp amu ci benn boo xam ne nit ñi fa ñu war a jaar lañ jaar pour tànn seen i candidat muy parti yëpp opposition comme pouvoir loolu nag li muy te mooy Sénégal ñi yor parti dañoo dokk ay buur di bummi ci kaw seen i militant te nag parti politique du loolu parti politique àndu nawle la c'est pourquoi ma jàpp bokk na ci Sénégal li ñu war a xoolaat mooy melokaanu parti politique parce que nag gis nga Ousseynou tant que parti amul démocratie biir képp koo xam ne falu nga ci yooyu condition boo yoree réew mi doo moom ci kii ci ci état bi en fait loolu nga bëgg a wax waaw mooy loolu c'est-à-dire que nit ki liñ ko liñ rek lay xam béykat da bokk ci parti te parti ba du démocratie mm-hmm. amu fa maanaam gars yi lu leen neex def yow itam boo yoree réew mi <laughs> da ngay toog loolu neex def mm-hmm. la